nga xam ne moo di sa waajur bu góor lan nga ñu mën a wax ci moom. sévère ancien combattant la woon du ma may dara moom yaru daf ko bëggoon ci doomam est-ce que xam nga sama papa bu doon dund tey du ma nekk comédien waaw moom sama destination yëpp militaire lool parce que daf ko gëm ancien combattant la te grade woon tuuti xam nga français daawul leen may ñu gradé lool parce que dañu bañ xam-xam bi nga xam ne xam nañ ko ci ci militaire ba pare mu dëgëroon fit ay grade da ko doon takk bu ñu ko avril mu san jot gis loolu lii mu sol nii yëpp da daan takk ba takk fi waaw médaille d'honneur fii ci put gi donc euh, mu nekkoon nag ku sévère aussi parce que ñun ba bambara lañu ba bambara moom yaram moom dafay dur ba pare bañ fo bañ nga kafe sa bop bëgg aussi tamit nga jàng loolu dafa am solo ñoom yooyu moom daf leen yitteloon nga jàng yoru jub jubal loo tax man ma teg sama bopp gi surtout ba ko léegi de aw ma ku nan ma déet ma neexoon tey ma toj réew mi mais loolu non non gàtta du yàgg ci ndox ba doonub jasad ju say biir wax nga ne ki nga xam ne mooy sa waajur bu góor bu ko fi fekkoon doo dugg ci li nga xam ne moo di milieu cinéma da bi nga ci bi nga ci duggee euh, fayeeku sa premier salaire euh, sa gestu sa papa nekku fi naka nga ko dundeeloo sarax waaw parce que saraxal ko ko moom waaw ñaan yàlla li ma ci dugg mu indil ma loo xam ne ni moom fa ma bëggoon teg mu feeñ ci loolu parce que dem naa ci ba ndox ci baat ñu di ma soxla gone yi nga xam ñoo bëgg aussi métier bi di ñëw ci man ñenn ñi damay am jot ñu woo ma ma bokk seen tournage yëpp pour gunge leen la mais man dinaa dem sax deba deba deb bari bon est-ce que lu ma sonn ma taxaw tuuti euh, nangu sam bopp ci yoon wi toog tuuti boo jëbbi jamono xëy na ma dooraat mais comme indil na ma loo xam ne nii wax dëgg fa yàlla yaakaaroo ma ko woon xamuma koon woon dama ciy béy ci wax ci def ci loolu ba xëy na bokk ma laatukaan yàlla na yéex mais daal je suis là pour jàppale jeunes yi je suis là tant qu'il y aura le théâtre jusqu'à ma mort je ferai le théâtre parce que li muy indi ci nit njëriñ li buñ ko xamoon gone yëpp balaa ñuy dem école ñuy defi yi théâtre parce que da lay tijji dugal ci yow xam xam-xam dañ ko mën a tuddee xam nga daal mais dina la tijji ci wàllu xel tijji la ci wàllu xalaat tijji la ci xol parce que boo amul lu sens du partage àndul ak générosité yaakaar naa ne doo mën a nekk un comédien bay nekk acteur. bu ñu jógee ci sa waajur bu dañuy dugg tuuti ci sa waajur bu jigéen seen ñaar yéen yéen yéen jotuma ko woon miin lool parce que dafa amoon ku ñu dëkkaloon ñu ko doon wooyee ay suux xam naa léegi sax war na génn àdduna. parce que gëj naa ko gis dëkk nañ ci kër gi sam papa mosu lu yaas donc mu dëkk man di ma toppatoo mel ni sama yaay mu jégi daf ma nangul sax ci sama yaay parce que daan tëdd nii ma tëdd ci wetam su ma setee mooma su setee eh, ci wàllu yëre mooma dafa ma daan sang boole si di ma toppatoo daal comme doomam waaw te mat la woon jamono yooyu Euh, fi mu dëkkoon ci kër gi amoon na mbuum bu fi nekkoon donc mbuum boobu aussi léeg-léeg mu wuti ci lu ñu togg togg togg mu toggal ma cere mbuum ba ñëw kër ga sax moom xamatuñ ma fi parce que bâtiment bi fere la nekkoon donc mu nekk ñaari bâtiment yu jàkkaarloo benn bi foofu la sam papa dëkk mu nekk euh, ñaari néeg ak benn pantere bu njëkk bu pantere dafa xawoon néeg yi daal amoon nañ solo lool parce que dañu reyoon benn bi mu def ko saal benn bi néegu biiram la waaw loolu daal xam naa ni foofu la daan ne euh, ku ñëw di ko seet si mu dugal la ci saal bi nga nekk fu mu toog ak yoom euh, faj nag soxla soxla moom daaw ko woon waaw loolu moom xam naa ko ci moom yaakaar naa ne bu ma jàngee ci moom noonu ma ma généreux waruma të parce que elle était tellement généreuse que ñu doon laaj sax seen bopp ni est-ce que kii daful ba te yow ma ngi ko jëlee ndar parce que ndar la juddoo ni sama papa juddoo ndar sama yaay waa git ndar la sama papa waa Pomoxol moom il est né le 12 août 1888 donc xam nga jamono jooju yàgg na tubaab yaa ngi fi woon. Euh, moo tax ma doon wax ni tubaab yi du ñàngu ña bëgguñu militaire boo xam ancien combattant boo xam ni dañ leen raw ci xam-xam wala raw leen ci njàng te moom euh, daw doon fooy ay njàng yooyu te dama daan toog bu di ma nett ni guerre quatorze dix-huit dañ def ñi nga xam ni dañ daan jàmbal ñuy dox pendant une semaine du ñu daanu bal bi posan bi boobu temps sedd moo leen di jàpp du gaaw yéeg donc ñu ànd ak ñoom di dox di dox di dox ba mu jékki benn ba sëriñ ñu jékki nekk kanam daal di daanu te la ñu soog xam ne kii bal moo ko duggoon quoi waaw. tey bu ñu doon laajte lan moo la gën a metti en dehors de li nga xamante ni moo di cinéma maanaam sa dund familial lan moo si dund loo xamante ne nii boo ko fàttalikoo day xaw a metti lool ci yow. bu fekkee ni jamono yi am naa njëriñ ak yàlla fi ma teg. bu fekkee ni aussi tamit may na ma dayoo boo xam ne nii tollu naa fa te mérité naa ko euh, bëggoon naa lool ñoom ñaar ñu fekkee ko mais nag jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogon waaw lu ko muñ doo suñu borom te xam ni euh, noonu la daal waaw loolu daal bokk na ci li nga xam ne nii euh, manqué dama lool mais ma di ko sant yàlla sant ko yàlla ba di ba demee màkk ba ñëw ko yooyu yëpp muñ moo ko indi donc muñ rek am solo ci àddina loo ci daj soo mu muñul rek def naa da ngay salité boo salité suñ borom sa bëggul ku tabal salit daal parce que moom mi la sàkk indi la ci àddina moom moo xam la war ci yow te même bu dee tuuti tuuti nga ci am nga doy loolu lool loolu la daal man sama dund noonu la ko jëlee ban message ngay lancé ñi nga xamante ni dañu teel a ñàkk waajur bu góor wala ñu teel a ñàkk waajur bu jigéen. mënuma leen wax dara lu dul muñ muñ nag amul ay façon ku nekk sa tolluwaay ak sa xel fa mu toll euh, lay yërmande ci yow yàlla may la ko nga du ko jëfee ak mën déglu ko car la patience et la longueur de temps font plus que force ni que âge <coughs> ci nekkee di yuuxu ak di jooy ak di def kar xamul amu njëriñ parce que yàlla leen moom moo ñu moom ñun ñëpp te mu dogal rek ay am man dama ma lool suñu borom di jàng nag lu bari ci sëñ Tuba parce que moom fa mu jaar ko xool fa mu jaar ak la mu daj waxuma sax ci bi ci boppam ndax moom bi mu soxlaa suñu borom dafa jaar ci yonente bi donc jaar-jaar boobu bu ci boole woon muñ ak ànd ak teeg ak dal dégg nga xam ni muy doxale